daleen ak jàmm mbokk internet yi seen njariñ TV wax ci Aïssatou Diop Fall moom nag tey ki mu xëyee moom mooy Ousmane Sonko ak Bassirou Diomaye Diakhar Faye moom Aïssatou Diop nag nee na Bassirou Diomaye Diakhar Faye ñemewul Ousmane Sonko da ko ragal te saa buy tukkeeti rek nañu bàyyil keneen Mimi Touré sax mën nañu koo bàyyil waaye ba mu ñu bàyyil Ousmane Sonko mu mel ni nag ragal gi nga xam ne waa Benno Bokk Yaakaar ragal nañ ko Ousmane Sonko ay Aïssatou Diop Fall mii nag noonu la demee mu mel ni mbir di sax dafa reetaanlu wante moom da doon jàllale ab message Aïssatou Diop faal moom mu ngay ñaan président de la république Bassirou Diomaye Diakhar Faye mu ñëwaat nu mu gën a gaawee si réew mi mu koy wax nag ak benn ton boo xam ne da ci doon sax ree moom mu ngay interpellé nag chef de l'état di ko yow woo te nankaan bas dañu lay demander rek nga bañatuñoo bàyyi ci loxo yi premier ministre Ousmane Sonko bile kii nag moom daf ñoo sonal di addu moom ma ngay wax sax ndax ne li nga xam ne moom mooy premier ministre kii di Ousmane Ousmane Sonko moom bas daal da ko ragal ba da ko war wax dëgg nag moom la muy ñaan rek moom mooy na ko affronté te bu ko affronté dinañu ko jàppale maanaam daal Bassirou Diomaye jaxaar fay la ñu bëgg mu affronté Ousmane Sonko mu mel ni nag yàq gi nga xam ne ñu ngi koy yàq diggante Sonko ak Diomaye ñoom juguñu ci uh, benn yoon tey nag Aïssatou Diop Fall moom da koo wax fang dang ñëpp di eh, dégg yemu ca nag ndax nee na dafa nekk ci ay jafe-jafe yem jëm ci wàllu koppar ba tax na nag ay employé am fayagu leen ba léegi ndax moom dafa yor ab web TV te it yooyu les salaires daal ba léegi dugagul ba tax na nag ma ngay lancé appel ñi nga xam ne ñoom ñooy bàyyi defal yàlla yi ngir ñu envoyé ko ay koppar ci transfert d'argent yile ndax mu mën a couvrir ay salaire am moom nag dina jàmm jàmmarloo ak ilimaanu jëwriñ yi di premier ministre Ousmane Sonko.